waaw décision bi moom comme ni ko Sénégal ñëpp jotee ñun pratiquement noonu lañ ko jotee bett nañu mais décision la boo xamante ni TAS moom moo ko jël wokaam euh, def recours am au niveau du TAS TAS décidé ainsi bon du ñu mën def nag lu dul. Euh,

parce que le département de Mbour 8 huit morts il ba a gisuñ nga fi sa tank ba que dégguñu sa am oh, département de Mbour pour te dire juste euh, en France que attentat bi ba fa amee pourtant France Sénégal la Sénégal Mbour le euh, Sénégal kon bu aussi problème bu bu pas Mbour réaction bu mu war a njëkk a def may def benn convoi ñëw fii taxaw si biir dëkk bi taxaw si digg dëkk bi aussi nuy kilifa ne leen lii am du yéen la metti man man mii la metti parce que au niveau de international la sama sama der moo si yàqu parce que li ñu wax tey njabootu euh, président Macky Sall kat ñoom fi sport nii lañ koy dundee kon bu amee loo xam ne tamit yéen da leen a metti man la gën a metti en plus que tey ñi nga xam ne tey dañoo ñàkk seeni i doom ñaati billet la ñuy maye fii chaque an amul benn vieux mag boo xam ne dugg na fii si département de Mbour ñu jox ko ñooy seen parents ne leen dem leen ñaanal seen i doom ndax la ñooñu politique wuñu kon ku politique la ñuy xaar ku jox ko vieux mag ñaata blessé ñu fa am plus de 500 et quelques blessés am blessé yoo xam ne ñooñu déjà au chômage ñu mujjee nekk parce que am nañ si xarit boo xam ne bëtam daf si yàqu chauffeur la woon am na si koo xam ne dañu liggéey jàppale parents am déjà les handicapés bekke la yor pourtant blessé grave yooyu jéem ñu leen la xool pour xool ni ñu mën a def ba évacuer leen France pour jéem leen a faj parce que loolu ñoru leen li leen ñoo xam mooy que premier ministre moo ñëw croisement Saly yor ndànk ànd ak ñu àndal na euh, ku mel ne euh, Ousmane Tanor Dieng doomu dëkk bi moo joxe 500000 ku mel ne Omar Youm moo joxe temps te tey tey tey tey ñoom la ñu waroon a jiitaroo ba problème ñoom ñoo waroon a jiitu koor yi topp seen ginnaaw ñu xam ne carrément doomu mbuur yi nga xam ne ñoo génn àdduna responsable yi nga xam ne ñoo nekk si état bi que ñoo leen jiite indi leen si biir dëkk bi mais jéemoon ñoo def sax effort boobu parce que dañoo mais la décision bi dafa am un point yoo xam dans la forme et le fond dans la forme il faut opposer Wakam avec la, fédération avec son démembrement la la Ligue Pro mais la décision bi dañu gis que ni liñ ci c'est de la littérature Nous dañu bind ne Wakam n'est que partiellement responsable donc loolu tubaab la dafay wane que ni Wakam dafa am responsabilité ci événement au 15 juillet mais comme nous sommes partiels, nous avons une responsabilité totale donc y a une partie qui a une responsabilité et qu'on n'a pas cité dans le procès verbal lan moo une structure organisée avec la fédération a une responsabilité de citer ou de sanctionner dans le procès verbal maintenant question bi posée posons, wu ban document wala rapport la fédération présente à la FIFA nous sommes ju pour nous pour faire ce jugement et on est sûr que ni le même dossier bi nga xamné ne suspendre pour 7 ans nga xamné amna les rapports amna les certificats médicaux blessés yi euh, des photos amna des vidéos et tout je pense que document bobu buñu ko à la FIFA même bu fekkee une instance de recours la décision yi du am une certaine différence mais aujourd'hui nous demandons demander la fédération ñu wax ñu ban document lañu introduire à la FIFA pour ñu décision bi mëna ça c'est dans la forme maintenant fond bi moy liñu pourquoi dans le document le tribunal dafa am ñu défendre wala décision pourquoi nous, avons WAKAM, wakam dañ koy sanction bi 500 000 avec match Wakam xamni bu koy joué lay sanction yi sur le plan administratif match 8 rek maintenant benen parti bi nga xamné wala yenen parti yi nga xamné am nañ ci responsabilité partielle pourquoi cité wuñu leen cela veut dire la fédération ak ak la ligue pro c'est des questions qu'on se pose ça c'est le c'est le domaine technique et administratif bu nek ci document bi bo xamni et malheureusement la presse aussi euh, wax waxuñu ci Melni que ni euh, document bi amuñu ko wala document bi dañ ko dañ ko dañ ko étudier wul ci ci ci ci li ci bir mu doon lo xam aussi metti nañu mu melni dafa am ñu ñu ni jël di lax euh état moo ngi seetaan situation bo xamni ne euh, situation bu grave bo xamni ne moo ngi euh, am actuellement parce que tay ni ñu ko yépp euh Mbour ak Wakaam du ñu euh, non nono wuñu parce que ñun ñëp ay sénégalais lañu mais tay ji ni euh dafa am benn situation bo xamni bu posé woo ay fait am am lu am euh bu féké tay euh responsabilité cité wuñu da fay melni benn sentiment d'injustice mooy am té lolu da fay révolter nit ñi. mën naa inciter ñu bari ñuy xalaat fayu et cetera et cetera tey ñun posture bi nga xam ne ñun dañ ko cee am mooy euh, en fait dañuy alerter euh, parce que conférence de presse bi ñu def dañu alerter. Euh, déjà fédération bi parce que fédération bi tey posture buñ ci kii dafa mel ni dafa complice euh, complice la par rapport ak décision bi nga xam ne taas moom la posé parce que tey bu fekkoon défendre nañu dossier bi ak euh, jéye yi nga xam ne décision bi mën na koo indi tey jii nii buñ ko défendroon yaakaaroon nañu ni taas du jël décision bi parce que tey jii nii comme niñ ko xamee tey Mbour ñàkk nañ ci ay doom yu bari ci ay situation yu metti ak tamit ay plus de 400 blessés blessés yi ngi fii am na ñoo xam ne seen bët yi dañ ko opéré ñi ba léegi ay beeke lañ yor et cetera et cetera je pense que tey dafa am euh, ay kii yoo xam ni euh, situation boo xam ne tey jii nii euh, buñ ko seetaanee situation bi tey mun naa jur leneen moo tax ñun bi ñu dañuy alerter te buñ koy def tamit manière bu responsable manière bu pacifique lañ ko defee ba tey jii nii keroog bu ñu xoolee match bi match bi nga xam ne dañoo envahir match bi. ak suñuy cinq membres ñu dugg ci terrain bi jour boobu ya dafa amoon dispo dispositif plus de quatre-vingts GMI ak ay euh, ak benn ñu ànd ak seen matuwaay ak lépp malgré dispositif boobu dugg nañ ci terrain bi pacifiquement ñëw taxaw euh, ñu livré wul lenn lañ leen doon wan ñu ñun détermination bi ñu am ba dugg ci terrain bi di def def ko pacifiquement am na ñoo xam ne mën nañoo am détermination boo xam ne pour yàq te tey amul dispositif sécuritaire boo xam ne mën naa téye loolu gis nga loolu moom ku koy xalaat moom jarul jarul jarul xalaat parce que xam nga da ngay mat da ngay waxee sa bopp man man naa bañ a coow mais comme lu président stade de Mbour wax man ci laay delluwaat lii dafa dépassé stade de Mbour du problème mu stade de Mbour fu mu nekk nii boo déggee wax ji ay décision coow man na bañ a am coow moom nañ ko xaar il faut ñu il faut ñu xaar ko mais nag ñu koy éviter loolu. nit ñi ñoo ci war a dox ni ñuy éviter coow bi ci loolu lañu war a dox mais dama gis na loolu ba léegi Sénégal doxuñu ci ah man boog dégguma ko parce que coow li du ay du du comité stade comité stade Mbour ñoo gën a tuuti ci stade mu 2 pour cent lañ président bi peut-être pour cent la ak ñu àndal yu si des yëpp majeure part doole ji yëpp nag yu si des ñooñ ci biti la ñooñ nag la kenn mënul canaliser foofu nag lay président yi. comité supporter bi waxee fofu la dégager ay responsabilité man comprendre na ci décision bu mu fofu la dégager ay responsabilité affaire bi nekatul ay affaire de ay stade de Mbour da ngay tok sa ben pas bo xamantene ne da lay romb ne la ah, man kat bu jour ba bu mat iso stade de Mbour damay dem loolu loo ci man en plus ay iso stade de Mbour du am. yo japp nga ni match bobu noonu ren duñ ko programmer. pour non ren match bobu du am teel lima la wax bu baax ngeen bind ko ren iso stade stade de Mbour iso. waxuma ISO stade de Mbour parce que taas lu mu jël dafa ne bu fekkee ne ISO dafay recevoir match huis clos lay doon à Dakar mais préciser wul bu stade de Mbour di recevoir kon ñoom amaana ay euh, comment dire ligue ou fédération ñoom ñu ngi jéem a yeneen voies moyens yoo xamante ni peut-être pour de euh, yóbbu match yi si yeneen dëkk yeeg yooyu loolu mënul am ci àdduna buñ ko xalaat. yéen xalaatoo leen dem football yi benn match benn terrain neutre entre ISO ak am. ISO du am. si toutefois que ni lii lii nii maanaam maanaam ci lu ñu nekk nii rek ñu nekk ci kenn doxu ci kenn waxu ci journaliste yi de moom ñu ngi ciy dox yéen daal yéen a ngi def lu ngeen man parce que lii benn information bu ngeen di jox nit ñi la pour ñu xam ne am na luy am mais dafa mel ne ñoom yëgaguñu non yëg nañ mais dañuy fënatal te fënatal baaxul Sénégal loolu moo ñu yàq dañuy bàyyi ba dara am nag ñu commencé di naan ay ay nii ay nañ nañ nañ prévenir xalaat luy am suba luy am. parce que danger la bu buñ ko waxee buñ ko waxul boo déggee médias yi ku nekk di ñëw ku nekk di woote ku nekk bëgg jot nit ñi c'est parce que am na benn alerte boo xamante ne nii mu ngi am te ci football la nar a jugee parce que xam nga lii décision bi xam nga mooy lan déjà huit morts huit morts ah léegi lu ñu daan iso huit morts cinq cent mille huit morts cinq cent mille rétrogradé wuñu leen defu leen dara indiwaat leen huit morts ñun bu ñu nangoo am na ñoo xamante ne nanguwuñu aujourd'hui tout le monde sportif se demande hein, techniquement comment la ñu organiser le championnat la configuration du championnat ça c'est un premier problème le deuxième problème sur le plan administratif administrativement naka on intégrer Wakam à cette période où L'affiliation est affiliation depuis hein? l'enregistrement des licences arrêté depuis le 15 février Comment tijjiwaat ah hein? naka intégrer Wakam administrativement pour être en conformité par rapport aux règlements généraux et au règlement intérieur de la Fédération sénégalaise de football donc si nous introduisons, introduire intégrer ko dañuy enfreindre li nga les règlements généraux et règlements euh, euh, de la compétition le règlement euh, fédération intérieurs règlement intérieur ligue professionnelle ça c'est ça c'est ça deuxièmement sur le plan administratif Maintenant, lañ ko a maintenant point sur le plan sportif Si nous sommes même bu ñu defee forcing que ni Wakam dafa war a ñëw je pense que bu dul dara ay on est des sénégalais ñun ñëpp dañuy œuvrer pour le développement du sport mais je pense que aujourd'hui dafay mel ni dañuy profaner li nga xam ne mooy victime yi fi jóge bërki dem huit morts dafay mel ni ñu sulliwaat wat yi te ku fi sa wayjur jóge woon nga dégg ne armeel yi sulli nañ néew yi dina la métti mooy li tubaab di wax profanation foofu la ñu toll lii dafa mel profanation lay doon et je pense que nous, avec Wakaam ay ay sénégalais nous œuvrons pour le sport Nous avons ay xarit Wakam, am ay xarit ci ci sportive de Wakam. donc ce que je ne moom la de demander aujourd'hui la responsabilité de l'État à qui il a fait une délégation de pouvoir de la fédération sénégalaise de football pour gérer organiser le football dans toutes ses formes Nous gis ne am nañ dans la pratique du football et de rappeler la finale la finale c'est la finale du ministre de euh, du premier ministre Moi, par exemple le premier ministre n'y était pas le ministre des sports à qui on a confié euh, euh, le, sport le président de la fédération n'y était pas mais pourquoi nous mën a une telle finale nationale présenté vous final ça c'est un sur le plan organisationnel nous le service d'ordre n'était pas à la hauteur d'une telle finale tout le monde sportif à l'unanimité finale bi Moussoukou Sénégal parce que c'est des équipes traditionnelles mobilisées ba stade bi Nous ñu ne Demba Diop pour un match de championnat pour la première fois mais c'est à l'image des deux équipes parce que dañu am public le service d'ordre n'était pas à la hauteur pour assurer la sécurité des joueurs et des, supporters. Ça, c'est bien un point. Alors qu'aujourd'hui, nous avons la Ligue Pro qui organisé la finale avec la fédération, donc il a une responsabilité. Lo une éthique et déontologie au sortir de cette finale le président de la fédération ou le président de la ligue démissionner mais même si nous démissionnons, le stade de Mbour a porté plainte le dossier mungi suivre son cours mais ba léegi dossier bi mënul dem instruction. a yenn euh, décision bi nga xamanté ne joxé nako y administrativement yenn Stade de Bourg, ban recours ngeen ci am. non ñun Stade de Mbour mënul def recours parce que dossier bi concerné directement le Stade de Bourg. c'est là la à la fédération mo mun a def recours parce que mom mom lañu opposé wu avec Wakam moy contentieux bi donc ñom ñom mun def recours pour. maintenir cette décision wala euh, ñu ñu ñu décision bi wala ñu sans décision mais ça, de Mbour amul lu def mais ce qui nous fait mal moi, loo xam ni bërki juillet ñu ngi au mois de janvier en six mois nous bëgg intégrer Wakam, naka la ñuy organiser ba Wakaam war a ñëw jouer à là les Mbourois ne sont pas prêts pour l'instant de recevoir Wakam à que ça soit clair parce que amna lo xamni euh, ay ay nit lañu ay doomu adama mënu ñu joggé ci lii bërki démb perdre huit morts plus de 400 blessés Dépenser plus de 5 millions de frais médicaux Nous avons toutes les sanctions dindi nañ une amende de 500 000 de 10 millions à 500 000 je pense que pincement de cœur on est on écœuré malgré tout euh, on nañ une conférence de presse à tout mars hein, on pardonne mais on n'oublie pas. Tay, nous on wax jàmm jàmm dafa am lu ko dañuy wax justice ba pare ñu dox

Nous, on l'a fait euh, nous dinañ dégager aussi une responsabilité parce que nous, bari gis manifestations euh, manière pacifique mais nous, on est des responsables plus lu ñu def dañ koy def ci ramené en fait nous dañuy dalal nit ñi euh, ñu violence mais niveau en fait euh, situation bi dafay nuru lo xamni contrôler parce que nous amuñu euh, dañuy regrouper mouvement euh, jeunes yu bari mais amuñu contrôle ci jeunes yooyu yëpp et cetera et cetera kon tay ji ñun tamit dañuy dégager nos responsabilités, parce qu'on a alerté on a alerté d'autant plus que bu fekkoon ne fédération bi amul possibilité de recours mais fédération bi mënon na def recours tay mu saisir tribunal suisse Euh, tey jii nii bu saisiroon tribunal suisse tey ñu surseoir décision boobu parce que décision bi impact yi tey euh, mun na jur euh, leneen ak leneen